salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kenn ci membre daayira Muxaddamatul Xidma nekk ci lan Tanzimi organisation bi Sëriñ Fallu Mbàkke Tuubaa jiite ñu ñëwoon fii nekkoon ci cérémonie officielle bi depuis le premier safar ñu ngi ci waajtaay bi ba nekk ci cat leen yi ñëwoon ci dalal gan yi andil leen ci kanamu sëñ bi mboolem ñi nga xam ne dalaloon leen ci résidence yi nga xam ne ñoo wuute yëpp andi na leen fii ci cérémonie officielle bi ñu gën ca ràññee lu mel ne délégation Tivaouane ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bàyyi ci gox bu ne kilifa diine yëpp ak relation extérieure ñi nga xam ne ñoo jóge bitim réew ñëpp ñu indi leen dalal leen ci biir teg leen ci kanamu sëñ bi seen bi yebal sëñ aboom Cheikh Mahamadul Fadal ñu fexe ba kenn du fi am benn jafe-jafe rek ñëw sëñ bi man leen a waxtaan ak ñoom man leen a yeewu ci cérémonie officielle bi li daal moo daayira Moukhaddamatoul Khidma jagal bis bi rek moo doon yitte ji jagal bis bi rek ba bépp gan boo xam ne nii ñëw nga fi doo fi am benn jafe-jafe ci ñëw ak dellu lépp ñëw saytu la bépp saytu boo xam ne ni war na ci te yell ci sa diggante ak sëriñ bi sëriñ bi teg ko suñu loxo ñu doon ci jëfandikoo ànd ko waa bi laa doon ci jëfandikoo suñu kemtulaahi kàttan jërëjëf